tànn moo mais le résultat yow comment tu peux juger les joueurs qui ont dormi par terre yow yow laa koy laaj yow mii di défendre Babacar Ndiaye. non man defendre ma kenn damay poser ay questions. <laughs> booy di ma tontu de tontu de. man défendre ma kenn ay joueurs yi ay joueurs yi nelaw ci ci aéroport ci suuf. tëdd ci suuf. équipe nationale ba pare que moom mu ngi yore mbuusu xaalis. war a joueur euh, joueurs yi hôtel.

parce que tu te le dire ah tu es passé complètement à côté des ah, parce que tu non non non parce que da nga def loo xam ne du sa cër du sa war c'est-à-dire que tu n'es pas là pour défendre Babacar Ndiaye tu es là pour pour que le public ñu xam pourquoi j'en veux à Babacar Ndiaye c'était ça ton rôle mais tu as voulu le défendre tu as tu as bougé mon équipe c'est-à-dire tu as tu as tu as capoté mon équipe tu m'as posé des choses qui n'ont ni tête ni queue te yow xamoo Babacar Ndiaye xamoo fédération nu muy doon man mi ma def quatre ans xam naa li xam naa nu muy demee merci merci